mën leen di nuyu ci turu président Lat Lat Diop bu muy organiser lii dafa wax ne bu leen wax jigéenu Lat Diop ndax Lat Diop journée de la femme la le mars ñu jox ko jigéen ñi te moom jigéen a ko jur kon jigéen bu ko jur ju jigéenu APR du jigéenu PDS du jigéenu réew mi doomu Sénégal moo ko jur looloo tax mu ne sargal bii nga xam ne maa ngi koy sargal jigéen ñi na ci jigéen ñi département bi yëpp bokk yem ci gis ci seen bopp te jàpp naa ne comité d'organisation bi noonu lañ ko doxalee ndax gis naa fi waa PDS gis naa fi yeneen parti yoo xam ne kon ñeewe na te teewe nañ ko kon lu ñu leen santoon defe ngeen ko noonu euh, le président Lat Diop nag mu ngi leen di gërëm nee na mënul ñàkk jëflante ak yéen munu leen ñàkk a jàppale parce que yaaya ko jur te ëmb dafa metti balaa muy gën a apparition bi gën mu nekk 6 mois daanaka à partir de 6 mois yaa ngi jublu comment parce que soo dérapé soo gaa daanoo am problème soo sonnee am problème loolu doyul juróom ñeenti weer bi benn bés ak yenn heure bëgg laa faat kon jigéen bésam boobu jouram boobu képp koo xam ne ne fàttali ko woo ko ba jigéen namoo lenn ci moom lu dul na moo ci moom lenn ci moom lu dul toroxal ko yaakaar naa ne boobu moom biir na ko ne suñ borom moo lay toroxal ndax moom nee na ma jigéen du ku ñuy toroxal jigéen du ku ñuy toroxal jigéen ku ñuy jàppale la jigéen ku ñuy respecté la jigéen ku ñuy honoré la jigéen comme président Lat Diop nee na fu mu ko teg fu mu ko teg ci beñ bu ñuy wax roog seen te nag mu seere ko ne bëgg bu mu bëgg Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ngi koy seere ne bëgg boobu su dee dëgg la ci moom te dëgg la ci moom na ko Cheikh Abdou Lahad wàllul jigéen yi ci lum gën a gaaw te moom lépp lum ci mën ak lum ci def pare na pour nekk ci seen wet jàppale leen kon xam naa ne euh, kàddu yu du bari en tout cas kontaan nañ jeunesse bi def nañ seen warugar soxna joojoo ñaan yaa groupe bi nga àndal def ngeen li leen war yëpp. ko waral mooy solo si mooy sargal jigéen. ñu ànd kook sunu leader muy Lat jóob mu xam ne nag jigéen ay yaayam rek mu fonk jigéen lool kon kooku ku ne xam na ne du toroxal jigéen ku ne xam na ne ñun Touba gii moo ñu ñor Toubaat mooy li ñu intéressé kon ñun duñu dem Dakar duñu dem fenn te fii ñu ko defeet nag nga xamante ni mooy dëkk Serigne Touba lu neex président Lat jóob la kon nag ñun Touba gii la ñu koy defee ñun waa Touba. te yaakaar naa ne ña dem Touba tam suñu xoolee lii dinañ mel ni Touba kenn kenn jógewu fi te ñu dëggu rek macha allah ñoo fi ñëw. ci lañ nekk ndax nag macha allah barki démb la ñu def réunion jigéen ñi ñëpp macha allah ñii ñëpp ma dar def seen réunion Adja Codé bii topp sama ginnaaw ñu fal ma présidente bu laat Diop te xam nañ ne man sutuma ci mënuma ci duma ci lenn waaye nag maa leen doy. kon nag yaakaar ji ngeen am ci man yàlla ba mu tas. lislaate fii moom ñun soccet la ñu jatu nañu bu yàgg ndax toujours rek toujours ñun jekk nañu ba taxaw bu yàgg tey nag ku gis lii xam ni laat Diop moom yaatal na waaye Cheikh Pouy mii di coordonnateur am itam yàqu ko waaye nag ñu ci profité waale di ci sant sama càmmiñul bopp di saadi bu di sama lépp yar ma waaw fii moom Babacar ñun pare nañ ci liste te fii ba pare ndax Lat Diop dafa war a ami député dafa war a ami député te ñun pare nañ ci jox ko ay député waaw loolu nag moom wax dëgg fa yàlla Lat dafa mën nitam dafa man nitam dëgg rek laay wax man ku ne xam na ni ci département bi kenn ku ne xam na ni xam nga maire joojo ah ñu bari xam nañu ma nekkatuma fii koo xamante ni dañ may làmbatoo ka laaj kon su ma wëlbatikoo man ànd ak Lat Diop ni ko ñàpp ñii ma àndal di ay gor ne ñàpp Lat Diop depuis bi depuis bi euh, wate yi jàllee ba naga ni kenn rënduwut kenn wul ñu gëm suñu bopp toog di ko xaar xam nañ ni Lat Diop jàpp nañu Lat Diop nag ah naan na nitam man na nitam ndax nag màggalug Tuubaa gi day defanteeg ñun lu baax tabaski muy defanteeg ñun lu baax kon ku ñu woo nga ndax ñun nag sunu far wi ñu am ku mu nopp nga nangu. Ah, xam naa kontaan ci rek am am ci mbégte kontaan ci bu baax ak am ci mbégte mm-hmm. ndax wax neexut waxi na neex déggi na neex waaye nit bu jëfee nit ñi ni tekk di ko déglu su ko mentirité ne bu ko bu ko bu delluwaatee waxaat ci ay kàddoom tegalaat nu lu leer. ñu àndaat ak moom ñëpp daw di ko dabu jiwaat rek am na lu tax. Mm-hmm. ndax dañu ginaar du toggi du toppi kuy taxani kuy di bàyyi fa kay bojj. Mm-hmm. te ñun Lat Diop mooy suñu dàgg. taxaw nanu ndax nit boo ko dee boo ko woo mu jël la soo ko messager mu tontu la loo xew mu jàppale la ca lu keneen xew xewle lu bokkul ci moom sax mu dem jàpp ca bu jigéenam waxee mu déglu. démb bi ko sunu président woo ak sunu coordonnateur ni ko jigéen ñi dañoo bëgg a sargal ndax ñoom du ñuy doxandéem te kenn fëkk yóbbuwu leen. Mm-hmm. danoo toog ci seen département bi war a seere lu mat xam ni ñoom danoo am fu nu bokk tax danoo gëm seen bopp mu ni lu nu soxla lu bés bi laaj ma def ko. di ko teg ci loxol sunu président muy monsieur Lat Diop mu jottali ñu ko président mu jottali ñu ko sis sis mu jottali ñu ko ñi am kàddu ci réew mi. ndax ñun jigéen lañu yaay lañu ay fondation lan ay femme développement lan te dañuy sukk di jur doom kon dañuy am yërmande ci xol bëgguñu kuy néewal jigéen bëgguñu kuy tuutal jigéen bëgguñu kuy sonal jigéen te ñi ngi sonal jigéen ñi ñi ngi nuy sonal ñi ngi nuy maltraité ñi ngi nuy weele ñi ngi nuy sonal di nu def looloo xam ni du suñu jukko te suñuy doom la nam te danoo am jaboot ñuy wax président la Diop ñoo ngi lay yónni ci président Macky Sall di la yónni ci lii xew ci dëkk bi mu sës ci Adji Sarr di doom amul yaay amul papa ñu di ko ŋawtu ŋawtee mi ngi waaj a xaru mi ngi am miti di am tiis te ñun yërëm nañ ko suñu biir xol lan ko tuddee ñuy wax ni ñun département bi ñëpp ja taxan takku nañu taxaw jatu ni soccet parce que yéen ko jàppale président Lat Diop jàppale leen Adji Sarr président Lat Diop jàppale leen doom doom la yaay la tante la waajur la te amul nday amul baay ñun nag ñoo ngi koy jooytu miti nanu ñi koy sonal nañ ko bàyyi ñi koy perturber nañ ko bàyyi ñi koy sonal nañ ko bàyyi ndax ñun yaay lanta danoo jur ay doom nanu bàyyi Adji Sarr moo am liberté ndax fiinu ko tëj prison la kaso ci la nekk ndax nag ku amul liberté mënoo wax mënoo lekk mënoo naan mënoo gis say bokk kooku dee sax moo ko gën ci yow président la jàppale nu ci Adji Sarr ñun daal ñun jigéen ñu sukk nañ jébbalu ci yéen di wax ngeen dimbali ci Adji Sarr ci miti diin koy teg metti na